di jooy ndax moo ne nañu wàcc ci mbedd bi ndax bakkanam bi moo gën bakkani ñooñu doomam wàccu ci mbedd mi adjoint wàccu ci mbedd mi benn membre bureau politique bu Pastef wàccu ci mbedd mi jël ay nit leen même leen manipuler di di ay ñëw pour ma rey sama njaboot yàq suma alal ndax ordre lañ jot ci ku ñuy wax Ousmane Sonko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 so xale yaa ngi ñëw ñu ngeen sànni xeer xam ngeen dëgg-dëgg Sénégal liñ fi bayal li ñuy bëgg a jàllale musiba naaru laay la heure bu ngeen ñàkkalee fayda ñi nga xam ni këf seen seen pochette yi attention bu ngeen néewale doole ñooñu réew mi anarchie moo fi am te Ousmane Sonko bëgg lu muy anarchie niti fitna la yàgg na ko wane niti fitna la Ousmane Sonko nit fitna la di gërëm bi ci taali sama kër ji ma jàppale di wax ne man li ma jot ci message ci Sénégal man xamoon Sénégal quatorze ans amuñu ñaar dërëm ma mosuma ko lekk ci ñaka Diouf bi ñëwoon moo ko rey maa ko défendre bi fi saaga euh, magistrat yi maa ko défendre Baba Fall maa ba génne ko kaso Khalifa Sall défendre naa ko ba génne ma ci te seen dërëm mosuma ko lekk kon ki am ak ci amul El Hadj day taxaw jàppale la loolu képp ko wet dërëmu Bamba Fall maire de Médina masuma koo lekk wala sax mu def benn boisson ni mais sonn nga ci procès bi naan la boisson bi kon wutuma dara ci ñoom Khalifa Sall amoon na ko masuma jox ñaar dërëm ku fi na leen néewal doole maay taxaw la xasaay défendre la ñoom si xëy na am nañ am nañ luñ suturloo bi yaayam dee bi amee fukki at ak ñeent maanaam yor ko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 ñi ay ñi ay bool ñu nga xam ne nag dañoo nekk occasion pour taal dëkk bi wane ni ñoom pare nañ pour dee ci géej gi genre yooyu la da amuñ benn yokkal yaakaar bi ci xale yooyu nga xam ne Ousmane Sonko te dox seen kanam yi wane ne moom moo nekk ak ñoom te waxul dëgg amul yërmande dafa ne ba koy utiliser plainte bi nag bind naa ko ba pare mais damay nekk procès verbal de gendarmerie bi constat bi boole ko moom jox ko procureur man nit de principe la juge ak procureur yi dañ leen fay dañuy liggéey dañoo waat lu bees Ousmane Sonko du nit wala malaaka la chaque jour tribunal atte Diourbel Kaolack Dakar Vélingara faale Ousmane Sonko mooy kan ndax booy bi xanaa ñu may saaga ñooñu nga xam ndeysaan dama leen a yërëm bi nit ñi di liggéey bu tekki ñoom ñuy liggéey pour saagal waa yooyu Sonko ko yor yow doo ko jéem yor yow yow sa bàyyi jur la sa lee toj ko yéen loolu ngay bëri da toj ay kër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 boo demee ndar mu ne nu ñuy doxee di dañuy doxee doxi naan ndax dañoo silvisé Sénégal dañoo sil yaakaar ànd naag ëllëg comme ni ñu ñu yaakaari Cheikh Ahmad Bamba un jour wax na ko benn émission jàkkaarloo mu ne li ma gis place de l'Obélisque ñu naan Sonko Sonko euh, comme kuy wax sëñ Touba jërëjëf ñu naan Sonko jërëjëf Sonko jërëjëf Fou laa bi ma doon wax léegi rangé waat na ci ñoom di leen tarbi ba daan ce qui est grave émission jàkkaarloo il faut que direct jour boobu moo doon tu invites les gens à l'assassinat au meurtre mooy yaa ngi oote ñu rey ay nit Soumou Malal moo ni émission jàkkaarloo ba la passé il faut deret tuur ci Sénégal gi kooku bu doon procureur fekkee ne émission bi di def liggéeyam waratoon francaram jour boobu Youssou Ndour bu amoon fulla boog bu ma Ndour jour boobu nañ koy dàq émission jàkkaarloo deret nga Sonko ak ñi mu àndal Y'en a marre gi mu seeti tey dégg naa ñoom lay seeti moo yey lafañ borom mbaam lay faral ce qui se ressemble s'assemble xale yu réew yëpp fa war a nekk réew ba dof waa yanama ba ko wax xamuñu tus kenn bëggul doom ju mel ni ñu nekk waa yanama benn sénégalais bu ko jur doom mu nekk yanama mel ni ñoom mel ni ñoom ñooy sën yëpp ay extraterrestre fii tey Ablaye daan ko bul forcé de tudd wax ñemoo ko tudd. di tudd lu bon a bon bi ñu ne Abdoulaye Wade bul forcé ñemewu man man ñemewu ma li ñuy wax bi ñu ne Abdoulaye Wade bul forcé réew ba dof xale yi saaga réew ba dof ce qui se ressemble s'assemble moo tax ma ne depuis avènement Sonko dëgg-dëgg Sénégal saaga lañ gis Sénégal sos Sénégal fen Sénégal manipulation Sénégal léegi ay saa démb ci guddi bi ñu waxtaan dafa réew ba donc ñooñu da ngaa dof léegi ñu ne am na benn audio euh, bu fuité entre Adji saar ak ak ak Sidi Sidi Baye xaw ma am koy wax ñu ne Adji saar la mii ñii est-ce que ay gor lañu ñii nu ñuy fenee lañu ñuy noyyee fen nañ ba nëpp fen rek pour jël réew fen Ousmane Sonko fen na ba nëpp billahi wallahi talaay te bu ñemee dëgg da jël kaamel teg <laughs> dañ ko lancé benn défi da teg kaamel waat 94 milliards feddaate na fii ci Mamour ci ci Mansour Faye mu mel ñetti fen senegal Sénégal yëpp teg seen bët farikat bi rek wóolu ba damay def denk lu la da ëllëg jàmteg sa billaahi wallaahi taalaay nañu wax El Hadj Diouf mas na fen ci lii donc plainte bi mooy premier point bi léegi plainte boobu rek du ma ci am médiation Matar Gueye booy woo toog yow doo juge doo procureur yemal fi nga war a yem yem leen ci promouvoir la religion dafay dafay médiation boo amee problème politique entre les hommes politiques mais médiation judiciaire mënoo koo def bu amee ay problème justice du imaam yi ñooy régler problème justice fi max na nekkee benn kooku sëriñ si seen place nekkul foofu ñun ñëpp gëm sëriñ ñu gëm imaam yi ñuy jiite dañu dañu justice mënuñu ko tëj ni léegi yéen imaam yi yéen régler problème justice xanaa kenn na ko nangul juge Ndari Diop le grand juge et le grand imam du tribunal de grande instance de Dakar il est juge et imam maa ngi koy nuyu sama xarit président Ndari Diop. deuxième point bi mooy génne benn image plainte bi nee naa pour crime la assassinat incendie volontaire ak dem aji aji plainte contre X la dañuy dañuy dañuy nar plainte contre X mais fu ñu waxee ne plainte X ko la ñuy joxe ci maay noonu nit may leen di waay alors léegi su ñu ñëwee ñëw manipulation bi ba ma dajee ak Papa Ndiaye balance mani Ousmane Sonko lu muy ragal def test major Kandji wax leen lan mooy test mu mudd juum ma ne man de bu ñu ma accusé viol Paris dama def test ADN ñu ne ma gongo yow laaloo kenn ndaw si ne sama pooj pooj gauche bi nga laal loolu de mooy viol bi ñu wax il la caressé ma cuisse gauche France dañ lay accusé viol ngay génn Sarkozy bi ñu condamné barki de mu Ndiaye dekk na président France man El Hadj Diouf mu ñaan conseil bay intervenir ban conseil France amul intervention de ko fa def ñu rek sa liggéey de c'est-à-dire ñu ne El Hadj Diouf yeggul ci xale bi ko jegewu ko mais nu ñuy def nu ñuy te c'est-à-dire rek ñu ne ma ci waaye ñi nga xam ne ñëwuñu def te c'est-à-dire naa ne moom waa loolu ñoom yow doo dem demal ka bañ ma ne ko attention boo demee billahi boo demee bu defee test bu négatif man El Hadj Diouf maa lay défendre xam nga ne jubóowuñu mais kon nga xam ne man je combat l' injustice kon man mu neex la mu naqaree dana la défendre ñu jël loolu parti boobu ci France bi di ko di ko dawal bërki dem ba tey ñu ne ñu ne comme moom génn na génn na en euphorie ñu di ko tàccu ñu ngay fari dèjà nekk na président te du tous léegi ñu bëri dem jébbalu ci moom ñu ne ma damaa dem jébbalu léegi moom laay défendre man bàyyi naa aji saar ay gars yi Playing bi de Sonko rajim ay gars yi non je je suis très sérieux mais xooleen ni ñu doxee ci kaw maa ñëpp gëm ni man dañ ma wax fu ne am nga sax conférence bi ma def ko tey tey tey tey tey film boobu ñu génne montage boobu moo tax tey ma koy conférence de presse billaay dama ne dana sama sama sama kër gi ñu lakk bu foyee ba pare yëpp pare ba ma déposé plainte ba sama avocat yi ma toog seen wet ñu expliqué loolu dinañ amaat mais bi ma gisee muy law ci diaspora bi Amérique oo ma Italie oo ma France oo ma Foundiougne oo ma Saraya oo ma Matam militants yi di ma woo di ma ngeen la woon daw daw des mais am na luy daw ñu naan léegi xam nga ñoom dañu xool film ñu mën a xool ay édition surtout wal fajar yi bon xëy na am na zone yoo xam ne yeggu fa je ne pas mais mais mais mais donc du ñëpp seetaan ma émission boobu fo fa jàlloon donc ci loolu la ñuy profité ci loolu la ñuy surfé waa kër Sonko yi a ah, équipe de bandi boobu équipe boobu nga xam ni dox ci maanu ni ñu rek la équipe boobu boo jël dagg li ma waxoon changé sens bi te booba dafa doon pousse sa waay waay dafa ko doon pousse pour mu ñeme sa waay looy ragal demal bu dee bu dul yow man baa dee défendre loolu amu ci droit man mii defoon dëgg rek boo demee te liñ la waxal du yow ndax test bi wane ne du yow ma défendre la aw ma ci droit loolu da lañ jël ni dindi fi ma ne dama lay défendre ñu ne léegi saye alaaju daw na waaw ni mu amee ay tapet ni mu amee ay xut ni mu amee ay yambar ni mu amee ay opportuniste yaakaar ni Sonko ëllëg war na fay nekk menuisier wala planton wala mécanicien wala président moo xam lu muy nekk tax ñu dem jébbalu ci moom foog ni jël na nguur gi ñoo xam ku nekk yambar wala ngay calculer naan xëy na mu falu ëllëg naa ko tarbiyu léegi yaa xam yàlla xam na kii falu ëllëg démb yàlla pare na démb tey soog a ñëw man dama gëm ni maay falu 2024 incha allah rabi l'homme du 23 juin vous donne rendez-vous en 2024 terrain bi kañ koy réseaux sociaux yi ak presse bi dina utiliser di wër di wax am say am say site internet taxul nga falu Macky Sall l'avait dit ndee na keroog en 2019 bi ñu def campagne wër le Sénégal mu ne xa foog ngeen ne réseaux sociaux yi ak di saaga mooy tax ku foo mooy tax nga falu falaguloo am ñu lay xeexal ci mbedd mi rey seen bakkan say doom toog sa kër yow nga toog sa kër say militants yi de premier plan kenn gisu leen ci terrain bi ñuy coow ci plateau télévision yi kenn séenu leen ci manifestation yi ñu utiliser ay doomu jàmbur seen même doom wàccul ñuy nax booy ñuy dee pour ñu am ay université ay banlieue di toj ñoom di toog croiser les bras costume karawaatu naan dof yi ndeysaan naan nañ seen yuur gi naan nañ seen yuur gi laboratoire boobu nga xam association de malfaiteur la waa Pastef laboratoire ba dajee na seen nu muy tojee bopp nit ñi benn par benn nu muy naanee yuuru nit ñi kon mbokk seen manipulation boobu moom métti lool te ci lañ dëkk dañuy génne benn affaire élage dagg ko xoolal ñu benn benn ki bi ma solee euh, bassin bu jaune bi di wax xaj yooyu may saaga ñu ne El Hadj Diouf fou de rage insulte la maison de El Hadj Diouf eh, xam nga euh, mais El Hadj Diouf de rage insulte alors que man ko defoon ak booy njawar ci site boobu tudd euh, le monde à Dakar xaw ma booba problème aji sar sa amagul mais boobu ñu may saaga ci levée de fonds bi bi ma ne Sonko trian la sàcc la ndax dafa bëggee a blanchir xaalis bi mu jëlee extérieur ma demandé ñu auditer xaalis Pastef ak xaalisam de perquisition këram moom moo ne woon xaalis boobu motif de dissolution de parti la soo ko ko wax bi ko waxee lañ may saaga ma tontu leen nen man waxuma xaj yooyu nga xam ni ah du ma seen morom dañuy mbëw rek ñoom ay xaj Sonko lañ moo bëgg nag Sénégal yi nekk nit man ñooñu lay waxal waxuma ak ay xaj loolu lañ jël ni man man damaa mer di saaga alors que ëpp de deux mois avant même affaire Sonko Adji Sarr xoolal waxee Sonko ni ñu garaawee xool ni ñu mënee kàccee xool ni ñu mënee sose Sénégal yéen lay wax dernier mot ngir yàlla xàmmee leen ràññee leen